émission Al Amine tey nag émission bi ñu fas yéene waxtaanee loo xam ni ñun ñëpp ñu ngi koy waajal di ko séntu muy chahru ramadan al mubarak euh, weer woowu nag nga xam ne li ñuy wut yépp ci weer wi lañ koy amee parce jullit yi mu gën a soxla ci àddina ñaar la mooy njëggalu yàlla ak yërmande yàlla sunu jaamu yi ñuy def yëpp buñ ci dëggalee suñu njaamu ci sunu borom nangu sunu jaam ne ñun ay jaamam lañ tax ñu koy jaamu lañu cay séentu mooy mu jëggal ñu yërëm ñu loolu nag ak yërmande googu ci weeru koor la ci yàlla dëxëñ ñu war ko cee ame kenn xamul nu mu toll ñu ñaan yàlla nag mu may ñu ñu yegg ci ak jàmm te bu ñu ci yeggee tamit li nga xam ne moo tax ñuy woor jubluwaay bi yàlla may ñu ñu mën a atteindre objectif boobu yéen ñëpp xam ngeen ne ñu ngi ci weeru Shaaban Shaaban moom la wolof yi di wax baraxlu baraxlu googu nag ñu ngi ci ba fi ñu toll nii defe naa ñu ngi ci ay yaamul biig di nit ñi di ko waajal sunu yaay Aïcha radiallahu anha nee na amul wenn weer woo xam ne gannaaw weeru koor yonent bi daan na ci woor lu ëpp li mu daan woor ci weeru Shaabaan yenn boroom xam-xam yi sax nee nañu weer wi yépp la daan woor ba mu des ñaari fan pour rekk teqale ko ak weeru koor kon ñi nga xam ne yàlla ubbee na leen ci buntu naafila ci wàllu woor ñu mën a woor lu bari ci Shaabaan maanaam baraxlu wi luñ ci mën ci woor ko nañ ko def parce que gannaaw weeru koor mooy weer wi ëpp lu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan woor daanaka ñaari fan ba ñett rek la ci daan bàyyi mais li ci des yëpp daf ko daan woor dëgg la lu xel mën na nangu la Chaban danga nga ciy préparer weeru koor waajal ko ci moo tax lépp luy jaamu yàlla danga ko ci yokk lépp luy mbaax da ko ci yokk ndax su weeru koor bi yegsee nga mën koo def ni ko yonent bi digle sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax ñu fas yéene nag waxtaan ak sunu mbokk yi nañu waajal weeru koor bi weeru koor bi nag ni koy waajale mooy góor góorgóorlu ci Shaabaan Shaabaan gii ñu nekk lépp lu ñu mën ci lu baax lépp lu ñu mën si jaamu yàlla lépp lu ñu mën ci defaruwaat préparer ko psychologiquement ñu def ko dina am njëriñ lool euh, xam ngeen ne jullit yi lépp lu ñuy def ci àddina rek royukaay bi mooy yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax jamono ju nekk boo fa yeggee rek dangay jéem a xam def sa kemtulaay kàttan ne lii wala waxtu wii ni bu fa yonent bi tolluwaan lan la daan def nga jéem ci sa kemtulaay kàttan euh, weeru Shaaban salafu saalix dañ ko daan waajal ñoom weeru Shaaban boroom xam-xam yëpp nee nañu bu mosaan jot dañ ko daan tuddee sax shahrul Qur'an moom Shaaban ci boppam ndax bari luñ ci daan jàng alxuraan luñ ci daan nafar ndax balaa weeru koor wi di yegsi fekk seen làmmiñ yi miin alxuraanul karim kon tey nga xam ne weeru koor weeru Shaaban wi ñu nekk war nga gën a jubluwaat ci alquranul karim jëlaat kaamil bi li nga ci mokkaloon nga nafaraat ko li nga xam ne sa làmmiñ rattaxul ci woon nga fexe mu rattax loolu yëpp li nga ciy jublu pour weeral waajal weeru koor mag ñu baax ñi de bu Shaaban mosaana jot nee nañ guddi foo rombaan da nga daan dégg alxuraan bi lii riir ñëpp ngi jàng alxuraan ndax rek waajal weeru koor wi kon loolu sunu mbokk daara yi ñu ngi leen koy digal di ko digal tamit sunu mbokk jullit ñi xam ne li nu war a jàng ci alquran ci koor gi fii lañ ko war a tàmbalee ci weeru chaabaan bii ñu nekk beneen bi salaf saalih bu chaabaan a jot dañ daan juboo maanaam ñi meroo woon dañ daan juboo ñu dogoo woon dañ daan juboo diggante yi ñagasoon yëpp dañ daan fexe mu defaru ndax ñoom dañoo jàppoon ne weeru koor mën nañoo jéggal ñépp ba mu des ñaar ñi nga xam ne dañoo dogoo dogoo la ko wolof di wax mooy nga bàyyi nit ki kii tamit bàyyi la ngeen dogoo daal maanaam bu fekkee buum gu nekkoon seen diggante la buum bi dagg na nga jëm côté bi keneen ki jëm côté bi bu Chaban mosaana jot nag dañ daan juboo soit ñaar ñi dogoo kenn ki mooy jël initiative dem seeti keneen jubóog moom wala julli ji ci seen bopp ñoom ñoo daan yëg ne diw ak diw am na ñagas-ñagas bu nekk seen diggante ba dogoo am na fa ñu fexe jubale leen kon weer wi Chaban bi Chaban Chaban wii ñu nekk ñu ngi ñaan sunu mbokk yi képp koo xam ne am na lu doxoon sa diggante ak sa mbokkum jullit muy sa sa xarit sa frère sa njaboot sa ak lu mu mëntu doon rek fexeel ngeen juboo gaaw leen juboo juboo bi li nga ci jublu rek mooy waajal sa weeru koor parce que dugg ci weeru koor fekk yaa ngi dugg yaa ngi dogog kenn ci jullit ñi loolu jafeñ-jafeñ rek la lay indil te koor googu yaakaaru yaakaaruwul moo tax képp koo xam ne am nga problème ak nit ku mu mëntu doon fexeel nga juboo bu fekkee yow yaa tooñ mu wér na la yaa tooñ diw diw moomu nga tooñ bul rëy demal nga jéggalu ko bu fekkee ne dañ laa tooñ mu wér na la dañ laa tooñ jéggaleel te yàlla tax ñaar yooyu doo nga fi mën a nekk benn nga tooñ walla ñu tooñ la bu ñu la tooñee jéggaleel boo tooñee demal nga jéggalu ci loolu mag ñu baax ñi dañ ko daan def ci weeru Shaabaan waaye tamit ñi nga xam ne seen liggéey seen liggéey yépp dafa bokk li ci ëpp solo ci li ñuy jaamoo yàlla mooy jubale ñu dogoo ndeysaan boo demee ci yenn réew yi jullit yi am na fa ay kuréel yoo xam ne loolu mooy seen métier ñoom day dañuy day day boole ay boromi xam-xam ak ay boroom xel yu rafet ak ay kilifa ñoo xam ne lii seen liggéey rek mooy foo dégg ne diw ak diw am nañu problème nga ñëw gaaral problème bi yow boo leen ko waxee rek yow demal toog ñoom ñooy sol seen dàll dem fexe ba ñooñu juboo leen muy jamiyatul islaax al islaax bayna naas ñu euh, sukkandiku ci waxu borom bi wa aslihu daata baynikum ngeen ngeen jubale yéwénal diggante yi yàqu woon ngeen defar ko diggante yi lëndëmoon ngeen leeral ko loolu euh, tey dafa néew dafa néew parce que boo xoolee nit ñi léegi ni ñuy merowante ak ni ñuy ni ñu ñemee dogoo surtout ci famille yi dafa dafa jéggi dayoo ñoo xam ne ñoo bokk ndey bokk baay waaye tey ñu ngi mel ni xaj ak muus walla ñoo xam ne ñoo bokk benn benn benn benn ndey mel ni xaj ak muus walla ñu mel ni ñu bokk baay du ñu laalante walla nga xam ne yéen bokk menn meen walla bokk benn benn benn gaño du ngeen laalante loolu moom ku ku am seetlu rek xam ne jamono jii nii moom bari na te yu si bari boo boo laajtee nga def gëstu ba xam li leen boole <laughs> ree sax dalay jàpp danga naan xanaa du lii keñ moo tax ñii dogoo am na ñoo xam ne ñu ngi dogoo at du ñu tuddante ñii ñaari at ñii ñetti at ñii ñii fukki at ñu bokk benn dëkk bokk benn dëkk bu ñuy dund léeg-léeg sax ñu bokk benn quartier te ñu ne ñoom ndeysaan ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk maam ñoo bokk deret léeg sax ñoo bokk sëriñ léeg sax ñoo bokk lépp ñoo ko bokk waaye daal seytaane dox na seen diggante ba dootuñu laalante gis nga ñooñu bu ñu leen seetaanee loolu ci lañuy ñuy dee moo tax kuréel yi nga xam ne dañuy yéwénal ñi ñi ñi dëngoo ñooñu loolu mooy seen liggéey kuréel yooyu faaw ñu samp ko ci réew mi faw ñu samp ko fi am na nag ay benn benn yoo xam ne ñu ngi def loolu ay ñu baax ñoo xam ne fu ñu dégg ñu ñu xuloo ñu dox ci suuf dem jubale leen xam nga euh, loolu lu am solo la xam nga fen fen li muy xaraam yëpp dagan na nga fen jubale ñaar xuloo ñaar ñu xuloo dagan na nga fen pour jubale leen ak fen li muy xaraam yëpp dagan na nga fen tey nga ñëw ci siise euh, euh, siise bi ak saaxo saaxo bi dañoo am problème wala boog sax saaxo saaxo bi ak ndaraame ndaraame bi dañoo am problème dégg nga euh, la qadarallah ñu ne léegi Papa Laay Siise dégg nga am na problème ak Mouhamad Lamine yow nga yëg ko léegi nga dem ci papalaay ne ko papalaay yow de vraiment Mouhamed Lamine de ni mu la bëggee dafa ëpp man daal lu baax li ma dégg muy wax ci yow te yàlla xam na ne déggoo mu wax dara da ngay fen rek nga jóge fu ñëwaat si Mouhamadul Amin ne ko man daal vraiment sa mag ji daal bëgg na la papalaay daal papalaay si sami li mu la bëggee wax wax wax te yàlla xam ne ne papalaay waxu la dara xam nga boo fay jógee bu fekkee ñoom ñaar nit lañu day ñoom dañuy xam ne rek même bu ñu xamee ne sax da ngay yëf yi dollu tolluwul noonu mais dañuy xam ne kii dafa bëgg defar ñoom ñu ubbi buntu juboo fen yooyu moom moo baax waaw fen yooyu moo baax di fen pour defar xam nga fen ni mu garaawee buñ demee ba may la ko nga def ko yow jullit bi kon mbir moomu yitteel na lislaam kon maa ngi ñaan ñi nga xam ne xam nañ diggante yu mel noonu ak tamit euh, yàlla may na leen xarañ ci ci defar ñu gaaw defar diggante yooyu ci weeru Shaabaan bi yow mi tooñ nag moom mu wér na la yow yaa tooñ jarul ngay rus dégg nga demal nga jéggalu ji boo tooñee da ngay nangu ne yaa tooñ boo tooñee dangay nangu ne yaa tooñ bul rus bu laajee bu laajee raam demal nga raam bu bu laajee lu rëy baaxul rëy baaxul am na ñoo xamante ne ñoom am nañu problème ak nit fa ñu toog wér na leen na ñoo tooñ waaye man nii laa toll fii nii laa nii laa njo sama njoolaay nii la toll sama yax bi nii la diisee si détails yooyu la nekk ba deyaale ak xàq yooyu noonu kon nañu góor góorlu bu baax yéwenal diggante yi nga xam ne neexul naqari na diggante jullit yi loolu ndeysaan bu amee rek euh, bu amee rek yàlla yàlla da ciy def ndox mu sedd léeg nga gis euh, ñaar ñu am problème kilifa gu baax yëg ko kilifa gi bu ko yëgee rek da jol sol dàllam ñëw fexe ba dajale leen ne sax bëggumaa xam sax lu ngeen jotee waaw bëggumaa xam sax li ngeen jotee li ma bëgg daal mooy ngeen juboowaat te yàlla tax léegi ñoom ci saa si war ma jooju ñu jox kilifa gi ci la ñuy joxante loxo léeg-léeg nga dem di yéwénal ay jullit yu am problème mais fa nga toog di leen yéwénal ñoom bu ñu waxee dangay ngay yég ne ñoom ñaar kenn jàppalul moroomam dara mais liggéeyu seytaane moom mooy ëf di yaawi di ngandal ba ñoom ñaar sax loolu day mujj jaaxal leen te loo xam ne teguwul fen kon weeru chaabaan bi aslihu bayna al ixwa aslihu data baynikum islaax boobu aussi nañ ko def ci diggante kuréelu lislaam yi diggante naanu waay yi xuloo bi amul njëriñ te nga xeexante bi amul njëriñ wuññuwante sutura bi amul njëriñ ku nekk na delluwaat xoolaat boppam dégg nga li nga xam ne moo doyadi ci ci ci ci mbokkam walla ci yenn mbokk jullitam na ko na ko yéwénal na mu gën a rafetee na ko yéwénal na mu gën a rafetee bu fekkee jalgati nañ ci say àq nga nga nga nga nga bàyyi sa àq boobu jéggal leen ko te yàlla tax la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadi ilayka li aqtulak inni axaafullaha rabbal alamin bu ay kuréel ay mbooloo jógee di wax lu ñaaw di la wax lu ñaaw bu leen ko delloo parce que yow lu baax lañ la sant nga joxe ko yéwénalal suturaalal ñaanal yàlla gindi leen waaw al imam ahmad ibnu hanbal nee nañu bu mosaana def naafilaam yu rëy yooyu mu daan def Euh, am na ci borom xam-xam ñu ne avant ñu koy dóor ca fitnatu xalqil quran daan na julli ñetti téeméeri rakka par bés guddeeg bëccëg bi ñu ko dóoree ba yaram wi neexatul mu jëm mag daan na naafila téeméeri rakka ak juróom fukki rakka kulla laylatin cent cinquante rakka waaye bu mosaan def rakk yooyu ba pare dafa daan ñaan ne yàlla képp koo xam ne mu ngi ci xeetu yontu yàlla muhammad nekk ci lu dëng ba pare jàpp ne lam nekk lu baax la nekk ci njubadi xam nga nit dina nekk ci lu juba jubadi jàpp ne mu nekk lu baax la nee na ku nekk ci lu lu dul noonu jàpp ne la mu nekk noonu la yàlla maa ngi lay ñaan yàlla na nga ko gindi teg ko ci siraatal mustaqim kooku ñaanal na jullit yépp tey boo gisee say mbokki jullit yor melokaan boo xam ne rafetul te te tey bari na ci jullit yi yoo xam ne seen melokaan rafetul li ngay jëlee di leen saytana di leen diaboliser di yàq seen der di wax lu ñu def ak lu ñu deful bokk na li ci ëpp solo bu dee jullit nga di leen xool bëtu yërmande di leen xool bëtu ku donn yonenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa doo leen diaboliser mais da ngay ñaan yàlla yàlla gindi leen laallaka baaxiun nafsaka ala athaarihim laallaka baaxiun nafsaka loolu da lay métti parce que da ngay am yërmande ci ñoom mais boo buggee def camp ñoom ñu def camp ngeen nekk di xeex di xuloo vraiment loolu dara amu ci benn amu ci njëriñ nañu fexe taqrib bayn al jamaat wa bayn al madahib wa bayn al madaris wa bayn al tayarat al islamia loolu nañ ko wane ci weeru koor wi wane ko wane ko am tolérance am dënn bu yaatu am yërmënde am cofeel ci diggante jullit yi noonu lañuy ñuy teeroo weeru koor ñi nga xam ne am na ñagas-ñagas seen diggante yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla jubale leen yal na yàlla yàlla def ñu juboo yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na daganul ci ñetti jullit ñuy dogoo ñetti fan daganul ñetti jullit bu ñu merewoo ñetti fan nabiyul mustafa nee na boo bëggee xam ki gën ci ñoom ñaar mooy ki njëkk sol dàllam dem jéggalu ji ko dem jéggalu moroomam am na nit ñu baax ñoo xam ne yegg nañu foofu ñoom boo jotee ak ñoom même ñu la tooñee sax ñoom même boo leen tooñee ñoom bakkaaru dogoo boobu la ñuy bañ moo tax dañuy ñëw sax jéggalu la jéggalu la man daal maa ngi jéggalu xam naa ne même bu ma la boo ma tooñee sax jéggal naa la ñoom ñooy def démarche yooyu loolu nag nit ñu màgg ñi nit ñu kawee ñi ñoom ñoo mën loolu tey it jullit war naa góorgóorlu ba yegg ci niveau yooyu beneen bi ñu xam ne weeru koor wii nu jëm li si jublu li tax ñuy woor ku nekk balaa ngay wor nan nga ko posé sa bopp limada asuumu ramadan limada asuum lan moo tax may woor waaw juu atash taab sahar dëng lépp daje na ci weeru koor da ngay xiif da mar dangay sonn vraiment da ngay jeex coono boobu yëpp limada لماذا كل هذا التعب وهذه المشقة léegi asila yooyu la budda min tarxiha la budda min tarxi hadihi al asila limaada ajuu limaada ataab limaada asharu layali loolu question boobu nga koy laaj sa bopp dafa am solo lu tax may woor xiif mar sonn lu tax loolu boo tontoo question bi rek dana leer nga xam ne farata gii nga xam ne sunu borom farataal na ko si ñun pour ñu koor ñu woor benn jubluwaay képp la amul ñaar mooy li nakuuna min al muttaqin ngir ñu bokk ci ñi nga xam ne danoo ragal yàlla koor moom su baaxee nga def ko niñ la ko digalee la nga cee jëlee mooy ragal yàlla waaye nag koor moom yombul wax dëgg yàlla yombul léeg nga gis ku dund juróom benn fukki at muy woor yàlla nanguwu ci benn parce que nam koy wooree baaxul léeg-léeg dund gis koo xam ne giir gu dundam woor na woor yi yàlla nanguwu ci benn parce que nam koy wooree baaxul woor pour mu baax danga koy def ni ko yàlla digle def ko ni ko yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam diglee te boo bëggee xam koor yi nangu na dama koy faral di wax xoolal suñu comportement avant koor ak après koor bu fekkee comportement yi am na changement bu baax rek koor gi baax na su fekkee amul benn changement nag xamal ne koor gi demuloo fenn fenn nga demul moo tax bari na kuy woor ku naan dafa woor te fekk koor gi du ci jële lenn lu dul xiif ak mar ak coono parce que li ñu bëgg koor bàyyiloo ko nit bàyyiwu ko li ñu bëgg koor di ko def ci nit moom defu ko ci moom kon ñu xam ne euh, weeru koor jubluwaay bi mooy jullit bi am ragal yàlla kiy def examen dafay wuti diplôme boo defee examen ba pare nga échoué année boobu da nga koy jàngiwaat parce que amul njëriñ ci yow bari na koo xam ne examen corps mu ngi koy def ba mu juddoo ba léegi mësul jàll damaa mësoon a gis <laughs> ci benn journal ci réewu euh, Tunisie benn waay joo xam ne def na bac dix-huit ans dix-huit fois def na ko muy def bac di di échoué dix-huit fois ci dix-neuvième fois bi ci lay doog a am bac bi di échec rek et pourtant ñun suñu koor yi bu ñu xoolee noonu la lu ci bari dañ koy woor di woraat di wooraat rek mais nangu amu ci parce que nangu gi mooy mu ngi feeñ ci sa comportement mu ngi feeñ ci sa ragal yàlla léegi ki woor woor ba mu jeex nag amul ragal yàlla kooku koor gi baaxul buñ ko ko waxee buñ ko ko waxul baaxul dañuy toog rek naan yërmande yàlla yaatu na yàlla baax na mais koor gi moom baaxul wax dëgg yàlla parce que koor moom boo ko defee ba weeru koor bi jot nga yëg ne saragal yàlla amul saragal yàlla yokkul yow da ngaa nañ ci yàlla musal loolu mooy dëgg gi te boo gisee suñu borom dig ña ci ci weeru koor mais buñ ko defee dëgg-dëgg nañ ko nañ ñu ko digalee dañuy am ragal yàlla parce que taqwallah mooy saadatu daarayni bi nit ñëpp di wër mooy bonheur xaqiqatu saada mooy taqwallah tey nit kiy wut alal li muy wut mooy bonheur nit kiy wut pouvoir li muy wut mooy bonheur nit kiy wut xam-xam li muy wut mooy bonheur nit kiy wut daraja li muy wut mooy bonheur loolu yëpp bonheur la ñuy wër te it suñu borom nee nañu nag yëf yi nekkul fañ koy seete sa seetee saadatu daarayni soo ko bëggee ci ragal yàlla la nekk amul feneen léeg-léeg nga dajale ci alal lu kenn xamul nu mu toll ba léegi doo am bonheur nit ñi ñoo mënul xam li nekk ci sa xol waaye ci sa biir xol texewuloo béguloo parce que am na lu la manqué mooy xol bu ci ragal yàlla nekkul borom mënul am bonheur même la mu am boo ko ñëwee ci kaw ni da ngaa xamul li nekk ci suuf moo tax boroom xam-xam ba waxoon ne walastu ara saadata jamaa maalin man de gis ma ne bonheur mooy nga am compte bancaire yu fees man pour man du loolu parce lu bon bon yàlla ubbil na ma ci wàllu àddina koom-koom am na lu ma ci am mais ba léegi ana lastu saidan mu wax loolu walastu ara saadata jamca maalin walakin attaqiya huwa saidu li wér te mooy ki ragal yàlla kooku mooy ki texe kooku mooy ki am texe àddina texe àllaaxira kon weeru kor bu nangoo daf lay jural saadata daarayni saadata daarayni mooy texe fii texe fële weeru koor bu baaxee da lay jural ragal yàlla ragal yàlla boo ko xasee am rek yow jeex na sa problème réglé na waaye lépp loo mën a am ci àddina te amuloo ragal yàlla dafa mel ni amuloo dara kon loolu dafa war a leer ñun ñëpp ñu posé waat suñu boppu question ne lan moo tax ñuy woor lii tax ñuy woor mooy dañuy wuti ragal yàlla ku nekk nag seetal fi nga toll ak bu koor gi jeexee fan ngay toll loolu ku nekk nag yow yàgg na xam sa bopp balil insaanu ala nafsihi basira yow xam nga fi nga toll tey natt ko bu baax nga jàpp ko ba koor gi di jeex nga gis fan ngay tolluwaat weeru koor niñ koy niñ koy teeroo salafu saalix daan ko teeroo teeroo noonu muy mag ñu baax ña maanaam weer la woo xam ne weeru projet yi dañ ko war a tëral pour def lu baax léegi tey yow mi nar a def lu baax ci koor gi léegi nga koy tàmbali wutal ko budget ne tey par exemple ah, man de bëgg naa koor gi yëpp waa jàkke ji maa leen di jox ndogu nga commencé ko préparer nga ne man léegi lu man incha allah koor gi yëpp dinaa dundal nangam ci ay famille maa leen di jox ndogu wala man nga ne koor gi incha allah nangam ci ci ci ay nit bés bu yàlla sàkk dinaa leen dogal waaw nga ne man incha allah koor gi lu bon bon nangam ci famille dinaa gàddu seen dund ba koor gi jeex projet yi léegi nga koy tëral parce que weeru koor lu nit daan def ci lu baax rek da koy yokk sunu yaay Aïcha nee na yoon ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku nekk xam na ak tabeem waaye bu weeru koor musaana jox jot dafa daan mel ni ngelaw luy riddeeku ni muy sottee ko ni ngelaw li di riiree di kii noonu la tabe yonent bi daan mel di joxe rek kon léegi nga war a commencer sa programme lan nga war a joxe ci koor gi surtout ñi nga xam ne yàlla dimbale na leen jox na leen teraanga yàlla dimbale na leen jox ko leen teraanga te fi ne réew mi ku bëgg a def lu baax rek fi nga koy defee mu ngi fi nit ñi xiif nañu nit ñi mar nañu ñii rafle nañu ñii wéradi nañu ñii wéradi dafa am genn benn benn texte bu ñu ma envoyé fan yi waa joo xam ne moom fa mu dëkk dafa dafa jàkkaarloo woon ak ay jigéen yuy jaay seen bopp ñu gis ko saa su ne rek day woo benn jigéen buy jaay boppam dugg ak moom ci biir kër gi fekk kër gi nag boo duggee dafa am beneen port bu nekk ci gannaaw boo ñëwee toog waxtaan ak yow nga foog ne client la dalay laaj li ngay def lu la ci dugal am ñoo xam ne dañ naan ko ñun de damaa yor njaboot gu sew awma lu ma leen dundale damaa sonn damaa nàngam mu ne la su ma la joxoon temps ci alal nooy def ndax di nga bàyyi lii nga ne ko waaw mu jëkkati xaalis ba jox la ne la demal nga daani sa doole jaaral ci bunt bi jàll nga jaar jàll keneen ñëw mu laaj la nga ne sama yaay dafa war dafa euh, feebar feebaru xol nangam sàngam aw ma lu ma ko fajee moo tax may kii ni mu ne la su ma la joxoon temps ndax di nga di nga di nga kii nga ne waaw mu jox la nga dem jaar foofu noonu kenn dootu la gis léegi ñenn ñi nag jaaxle parce que koo xam ne boo duggee ci kër gi kenn dootu la gis ñuy commencé di ñaaw njort ba yëf yi yegg police bi police bi ñëwee dugg ci biir fekk muy waxaaleeg benn beneen jigéen ci jigéen ñooñu wax ak moom ne ko euh, moom it mu wax ko problème am mu jox ko mu mu mu mu jox ko xaalis bi police yegg si def enquete bi mu door leen wax ne leen fii ñi jigéen ñëw nañ fii ma waxaale ñoom ñaar dong ñoom ñoo ne ma lii dañ koo jël comme métier mais ñeneen ñi ñëpp ay problème mu àddina ay difficulté àddina moo tax ñuy jaay seen bopp comme man yàlla dimbale na ma ma man leen dimbale ma jàppale leen jox leen financement ñu dem daani seen doole xam nga loolu loolu misaal la ci def lu baax def lu baax parce que koo xam ne métier mooy jaay boppam te mu wér na ne lay jafe ñu àddina moo ko ci dugal nga fexe ba mu génn ci loolu tiyaabu jooju kenn xamul nu mu kenn xamul nu mu Sénégal ñu ngi def lu baax population bi tàmm nañ di def lu baax mais dañ ko gën a yokk dañ ko gën a yokk dëgg la nga jël benn tàndarma euh, nga bu fekkee loolu nga am genn wàllu tàndarma nga may ko nit mu dogee ko baax na mais fexeel incha allah koor gi yëpp bul dog yow kenn bul dog yow kenn seetal ñoo dogoo ndoog seetal ñoo xam ne da leen di bokkal bokkal xaalis boo xam ne koor gi yëpp dinañ mën seen bopp mais yaa ngi denc ay yaa ngi denc xaalis bi eh, ay millions ci banque bi yaa ngi mais tey benn famille nga ñëw jox leen cent cinquante mille deux cent mille deux cent cinquante mille nga ne leen kii dimbandikoo leen ko ci koor gi allahu akbar mais tiyaabo jooju kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu mu toll koor gaa ngi ñëw nga dem ci benn boroom kër nga ne ko incha allah li may xottil samay njaboot ci ci ci korité bi kër gi yëpp maa leen di xottil loolu yëpp ay bunt def lu baax la mais loolu fi mu nekk lañ koy waajal fi mu nekk nii lañ koy waajal def lu baax yooyu yëpp nag baas bi mooy nga def ko te yàlla tax nga jublu ci am yërmande yàlla nga jublu ci am njëgalu yàlla sunu borom kon nañu waajal def lu baax. ci ndimbal ci cadeau ci sarax ci fexe ba dugal mbëtte ci biir xolu jullit ñi biir mbégte nga dugal ko ci biir xolu jullit ñi weeru koor chahru baraka la chahru suruur wa farax bu ñëwee nit ñi war nañ yëg mbégte mbégte moo xam ne ñun ñëpp koy yëgandoo ñu yëg ne barke bi am na wallahi gis nga bu ñu ko defee noonu ñu yokk yërmande bi yokk dimbalante bi mboolem fitna bu ñuy ragal yàlla mën nañu koo fanqal parce que musiba moom bu xasee di wàcc di wàcc lenn rekk ko mën a delloo mooy def lu baax ak yërëmaande ak sarax loolu incha allah bu réew mi ñu bëri ci réew mi amee xol yu mel noonu yàlla mën ñu dimbale réew mi lépp lu ñuy ragal rek yàlla dinañu ci musal bu soobee yàlla beneen bi ni ñuy waajalee weeru koor mooy wee waa waajal ko nag ci ñaan ci ñaan yéen ñëpp xam ngeen ne wax dañ ko waxati ko ñu bari ci salafu saalix dañu wax ne at mi dañ dañ ko daan xaaj juróom-benn weer yoo xam ne moo tegu ci weeru koor buñ ci génne six mois yooyu yëpp lu ñuy ñaan dañ cay boole allahumma taqabbal minna ramadan yow yàlla ñu ngi lay ñaan koor gi ñu jóge yàlla na ñu ko nangul maanaam weeru koor yi bu jeexee dañuy ñaan yàlla nangul leen di ko ñaan di ko ñaan ba mu mat juróom benni weer allahumma taqabbal minna ramadan allahumma taqabbal minna ramadan yàlla koor gi ñu jógee yàlla na nga ñu ko nangul bu weeru koor musaana daj des juróom benni weer ñoom ñëpp dañ daan ñaan allahumma ballighna ramadan allahumma ballighna ramadan yàlla yàlla nag ñu jotale may ñu ñu fekkee ak tal weeru koor wii di ñëw yàlla nañu yàlla may ñu fekkee weeru koor wi incha allah loolu jamono yi ñu toll ñun ñëpp nañ koy ñaan dëgg la am na ñoo xam ne sunu borom dogal nañu duñ ko fekkee waaye nag nañu ñaan ñaan yàlla may ñu ñu fekkee ko allahuma balligna ramadan allahuma balligna ramadan allahuma balligna ramadan ñun ñëpp ñu koy ñaan yàlla may ñu ñu fekkee weeru koor mu may ñu woor ko nam ñu ko digalee mu nangul ñu ko ci mbaaxam ak yërmandeem kon ñaan moom fan yi loo ci doon def rek pour fekkee weeru koor na ko yokk waaye nit ñu baax ñi nit ñu baax ñi bu ñu mosaan jublu weeru koor wala aj màkka dañ daan bari luñ daan def istighfar istighfar mooy astaghfirullah astaghfirullah parce que astaghfirullah liñ ci daan jublu mooy am tawfiq tawfiq pour yàlla may leen tawfiq bi ba jaamu yàlla gi ñu jublu ñu def ko niñ leen ko sante waaw te yéen ñëpp xam ngeen ne xeetu yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu boroom da leen jox ñaari garanti dafa leen waxoon ne feeg yontu yàlla muhammad mu ngi ci seen biir mbugal du wàcc ci seen kaw maa kaana allahu li yuazibahum wa anta fihim feeg yaa ngi dund ci seen biir mbugal du wàcc ci seen kaw boo fi jógee tamit wa ma kaana allahu yuazibahum wa hum yastaghfiruun wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaghfiruun feeg ñu ngi saxoo astaghfirullah mbugal du wàcc ci seen kaw mbugal du wàcc ci seen kaw mbugal nag mooy catastrophe yu yooyu yoo xam ne bu ñëwee ay épidémie lay doon musiba woo xam ne day daj réew mi loolu feeg ñu ngi saxoo istixfaar sunu borom nee na du am moo tax euh, Seydina Seydina Seydina Omar ibnul Xattaab dafa doon wax ne mbugal su wàccoon ci waa suuf jógee kaw asamaan di wàcc ci kaw suuf dina jot ñëpp ba mu des kii def astaxfirullah kooku moom yàlla dina ko ci settee wa ma kaana allahu muadibahum wa hum yastaghfiruun booy def istixfaar boobu noonu da ngay am tawfiq pour jaamu yàlla gii nga jublu yàlla defal la ko dimbale la nga def ko nii la ko yàlla sante moo tax jamono yi ñu toll lu waay mën a def ci istixfaar na ko def euh, euh, duma dugg nag si defal lii ak lële loolu moom nit ku nekk yow xam nga li nga mën ce qui important mooy nga xam jubluwaayu istighfar istighfar mooy ñaan yàlla jéggal la bàkkaar yi nga xam ni mu ngi yaa ngi ci taq takk rip xam nga tey bàkkaar yi ñu yor ay géej la ñu ngi ci biir géeji bàkkaar yi géeji bàkkaar yooyu ñu nekk nag astaghfirullah bi ñuy wax moo ñu ciy génnee waaw moo ñu ciy génne mooy tax yàlla jéggal ñu ñun ay jaam lañu jaam nag dafay doyadi jaam dafay matadi jaam dafay fàtte jaam dafay ñàkk jom yooyu yëpp dafa daje ci ñun yow matuloo yow doyuloo yow xamoo yow munoo ñàkk jom nag ñàkk jom waaye loolu yëpp li ñuy siy dimbale rek mooy ñu sax ci astaghfirullah astaghfirullah boo doon def bàkkaar bés bu yàlla sàkk minute bu jot nga def as bàkkaar bu minute ba jeexee defal astaghfirullah waaw suñu borom wax na ko ci xadiisul qudsi ne yow doomu aadama law balagat zunubuka anaana sama sa bàkkaar bu nu yeggoon ci kaw asamaan ñuy teglante bàkkaar ba mu yegg ci kaw asamaan nga jéggaluma ko bokkaale woo ma yàlla dara nga xam ne man maa yàlla bokkaale woo ma waaye bàkkaar yi li muy bari bari yegg na ci goxi asamaan yi ci bari nga jéggalul ma nga jéggalu ma xafartu lakk boo ma ko jéggaloo rek ma jéggal na ko seetal ma loolu doomu aadama rek ngay tooñ mu ne la baal naa la nga tooñaat ko mu ne la baal naa la boo ko tooñaatee dina la dóor mbéj moo xam ne walla bu dee borom doole dina la tëj di nga xam ne duma sa morom yàlla nag melul noonu yàlla sa bàkkaar lu mu bari bari jéggalu ko boo ko jéggaloo rek mu jéggal la comme ñun nag amuñu jom dañu ñàkk jom toyadi matadi bàkkaar yi daanaka si oxygène bi la nekk ñun ñëpp koy noyyi daanaka kenn mucc ci ku nekk nag ak façon bàkkaar ba ngay def comme noonu la demee nag nañu ko assumer li Chérif Maamin doon wax Maamin Aydara ne fii moom ja di fi rëy làmmee jaru ko ne ni ñaan yàlla njëgal ñaan yàlla suturo yal nañu yàlla jéggal yërëm ñu ñun ñëpp nañuy ñaan yàlla lool loolu mooy dëgg istigfaar boobu noonu nag boo koy def incha allah dina nekk tawfiq pour nga mën a def topp gi niñ la ko digalee istixfaar boobu boo koy def dina bokk na ci li nga xam ne moo gën a mën a merloo ibliis gën a mën a tas yaakaaram mooy jaam boo xam ne dafa def bàkkaar ba pare xam nga boo defee bàkkaar iblis day kontaan day bég day bég lool ba jéggi dayoo waaye boo defee bàkkaar ba pare mu gis la nga dem jàpp julli ñaari rakk kenn gisu la nga yëkkati sa loxo yi yàlla ne ko yàlla allahuma igfir lii astaghfirullah min kulli dhanbin wa atubu ilayhi iblis def naan wëy yaay yàqu naa o oh. na sama liggéey li nga defoon li mu defoon yëpp yàq nga moo tax am na fu muy wax ne euh, doomu aadama yi halaktuhum bi zunubi wa ahlakuuni bil istigfaari dama leen alag ci di leen defloo ay bàkkaar ñu alag alag ma di jéggalu bàkkaar yi kon nanu góorlu bu baax ci jéggalu sunuy bàkkaar guddi ak bëccëg suba ak ngoon waaw sax ci di ko def parce que ku amul bàkkaar moom amul ku amul bàkkaar existé wul ci kaw suuf kullu bani aadama xataaun wa xayrul xattaa'iina tawwaabuun kullu bani aadama xattaa wa xayrul xattaa'iina attawwaabuun bépp doomu aadama rekk juumkat nga defkatu bàkkaar nga waaye ñay def bàkkaar ña ci gën mooy ñi nga xam ne su ñu defee bàkkaar dañuy tuub kon góor ak jigéen mag ak ndaw guddi yi ñu toll nañu bari lu ñuy def astaghfirullah ku nekk sa kemtilaay kàttan ak ku nekk tawfix bi la ci yàlla defal weeru koor aussi niñ koy waajalee dafa am sunna boo xam ne da cee nekk sunna bu am solo mag ñu baax ñi dañ ko daan def téere fiq yëpp mu ngi ci téere fiq yëpp mu ngi fi mooy boo demee da fay fekk baabu li atikaaf baabu li atikaafi baabul itikaaf mooy buntu itikaaf itikaaf mooy fukki fan yu mujj yi ci ngay couper sa bopp ci àddina dem dëkk ci néegu yàlla benn jàkk tëj say téléphone lépp amatuloo fenn soxla da sox sax si jàkk ji la fay nekke mooy jàng alxuraan tudd yàlla julli toroxlu couper sa bopp ci àddina loolu ñu baax ñi ñëpp dañ ko daan def ci weeru koor ku ko yàlla mën loo nag nga def ko baax na vraiment ku yàlla mën loo nga def ko baax na euh, ñun nag xam naa ne fi ñu toll moom yombuñu parce que soo bëggee def atikaaf bëgg a def bés bu jot nga def émission ci koor gi loolu du yomb xam naa ne daal ñi nga xam ne amuñu yitte yoo xam ne da leen di gàllankoor soo mënee def fukki fan yi baax na soo ko mënul tamit loo ci mën nga def ko ci sunne yu baax yi yu am solo yi ci la bokk mooy antikaaf day sànn jàkk ji nekk fële soo soo fa ñëwaan weeru koor ba gis nit ñi ni ñuy defee antikaaf ndeysaan nga gis góor gu baax googu Abu Tahir muy imam Demba Diop hafizahullah mag magum lislaam mu baax moomu nga fekk leen ci antikaaf bi da ngay mel da ngay dangay da ngay waaru ci yàlla da ngay yëg loo xam ne sax mënoo ko expliquer waaw dafay mel ni boo fa nekk boo fa demee da ngay daal beneen affaire la nga xam ne ñii ñu ngi ci beneen beneen beneen dimension beneen niveau nit ki su coupé boppam ci àddina fukki fan du déglu rajo du seetaan télé yu qur'an yu yusalli ala rasulillah yusalli qiyaama leyl tëj làmmiñam ci mboosóoru àddina lépp alqur'an fukki fan layla nahaara guddeeg bëccëg nga koy def boo fa jógee loolu dina nekk barke ci sa dund dina nekk barke ci sa xol te dina la yokkal ragal yàlla ku ko mën nga def ko waaw euh, yu baax yi nag loo ci mënul rek am na sa mbokk moo xam ne mën na ko maa ngi ñaan yi nga xam ne fas nañ def ko ci koor gi euh, bu ñu ci fàtte si ñaan parce que ña nekk ci antikaaf ya lu ñu ñaan yàlla suñu borom daf koy nangu subhanahu wa taala euh, beneen bi si ni nuy waajale weeru koor wi mooy préparer nag préparer bu baax a baax a baax a baax a baax a baax nga ne yàlla weeru koor wii su ma fi fekkee xaw ma dina ma fi fekkaat walla déet mën na am mooy doon sa mujjug weeru koor man yadri amul benn sikki sàkk am na ñoo xam ne koor gi ñu jëm mooy doon seen mujjug koor ci àddina ci biir koor gi lañuy faatu am ñoo xam ne après koor gi dañuy génn àddina koor dootu leen fi fekk ana kan ci ñoon moo mën a garanti ne koor gi bu ko fi fekkee dina ko fi fekkaat déwén kenn mënu ko comme comme comme kenn munu ko kenn xamu ko nag weeru koor yi bu jotee na nga ko jël au sérieux xamuloo di nga wooraatam de kon nga profité ci ñaata nit nga xam ñoo xam ne daaw wooroon nañ tey wooroon nañoo ak yow daaw tey ñu ngi ci biir bàmmeel am na ñoo xam ne laataa ñuy ñuy ñuy génn àddina dañoo feebar am ñoo xam ne kenn feebaru ci dañoo xëy rek faatu da ngay toog rek ñu ne la diw faatu na am ñoo xam ne da ngay kii ñu ne la dañu accidenté parce que lii nit dafa bari. am ñoo xam ne seen dee seen dee ajuwul ci feebar ak dara heure bee jot rek yàlla yebal malaaka mi ne demal jël ko mu jël ko kenn du xam lu la rey fekk li la li la rey dara heure bee jot rek am na ñoo xam ne seenu faatu dafa dafa lëkkaloo ak feebar balaa ñuy faatu dañuy feebar am ñoo xam ne seen faatu dafa lëkkaloo ay ak accident dégg nga am ñoo xam ne seenu faatu nag lëkkaloowul yooyu dara heure bee jot rek. fa ida jaa ajaluhum laa yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuun wa hakada noonu la war a préparer koor gi ñu jëm dañoo nekk Makka am soxna soo xam ne na mu doon aje dafa metti waaw foo ko fekk mu ngi jàng mu ngi ñaan dégg nga foo ko fekk mu ngi ci kaaba gi di wër ndeysaan dafay aj dafay aj ba ba koy même bi aj gi di pare sax dafa feebar bi ñuy bi ñuy jógee eh, Jedda di jëm di jëm di jëm eh, Dubaay dafa feebar sax ba dañu mujj ne ko daal mënul dem ci avion bi parce que wóorul ndax fi mu nekk ni santé mayetu ko tellement que Makka dafa jaamu jaamu goo xam ne dafa da ko da xam ne kii moom dafay aj man na ko waaw euh, kii euh, aja dafa ndànk yow nii ngay def dafa ëpp mu ne ma alamin man bi ma juddoo ba léegi maa ngi ñaan yàlla ñëw màkk comme yàlla indi na ma fi nag te xaw dinaa ñëwaat walla déet lépp lu ma mën dinaa ko def comme ñëw naa ba màkk moom dinaa aja aj aj ba yàlla xam ne man li ma mën def naa ko ndeysaan kooku dafa comprendre lu bari muy Adja Elisabeth Ndiaye gis naa koo dégg nag xawma fan la nekk ak euh, madame Cissé macha allah loolu la ñuy préparer corps corps xamuloo di nga wooraat wala déet. ndeysaan am ñoo xam ne koor gi mooy nekk seen mujj koor moo tax mag ñu baax ñu dangay dégg sax seen ñaan yàlla bu mu nekk suñu mujjug daje yàlla bu mu nekk suñu mujjug koor yàlla bu mu nekk suñu mujjug tabaski ah yàlla bu mu nekk ñaan daal bii bu mu nekk dernière bi yàlla nañ gisee waat comme wóorut nag boo ci yeggee jël affaire yi au sérieux woora la woor a woor a woor a woor ba suñu borom xam ne woor nga mooy tëndiku nag lépp loo xam ne day yàq spiritualité ci koor gi xam nga koor moom léegi ci Sénégal ndeysaan guu guu guu yàlla bi mu amoon ñu ngi koy commencé di ñàkk parce que koor léegi dafa lëkkaloo ak akum dafa lëkkaloo ak reetaan dafa lëkkaloo ak mbumbaay dafa lëkkaloo ak folklore koor gi moom bu ñu waxantee dëgg fii loolu moo fi xew léegi koor égal fo égal reetaan te koor nag loolu tax ko woon jóg koor foo toll danga nga war a branché wu ci sa boroom soit yaa ngay jàng alquran ci bëccëg guddi yaa ngi taxaw di naafila soo deful loolu yaa ngi jël livre boo xam ne yaa ngi koy liir pour mu yokk la sa digganteeg sa borom yokk sa xam-xam ci wàllu diine su loolu amul yaa ngi ci ndajewu diine ya yaa ngi def lu baax waaye wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne seen koor gi yokku leen dara jëriñu leen dara dara dara dara dañuy gën a ràkkaaju sax ci koor gi ci ndëngate ga ñu nekkoon loolu nag perte temps la koor gi nañu gën a xoolaat suñu bopp gën a defaraat xam ne dañuy woor dégg nga lépp loo xam ne day yàgg day yàq suñu koor danga koy moytu suñu benn kilifa gu baax dafa aji màkka am benn comédien bu mu dajee màkk am fu mu doon laaj comédien bi ñëw di ko ko laaj mu ko koy wan ñuy dox tuuti rek comédien bi commencé di ko rey la mun na ko booy continuer may noppi may tourner da nga ñëw laaj ma fii nga jëm xamuloo ko dinaa la ko wan mais boo fii def comédie rek may tourner man ñëwuma fii pour affaire comédie tey eh, très sincèrement koor gi yooyu neexatul wax comédie bi def bari bari bari bari bari ba nga xam ne bu la yàlla dimbalul booy dog koor sax doo tala nekk di di ñaan te booy bu dara des lu dul dog foofu jullit bi war na fekk muy préparer di ñaan yàlla soxlaam parce que kii ki woor puy dog lu mu ñaan yàlla nangu ko mais yow au lieu nga préparé pour ñaan yàlla ñaanal sa bopp ñaanal jullit yi yaa ngi préparer pour dem reetaan yi pour dem xool rek yoo xam ne yu mel noonu loolu ñoom dañuy wut seen xaalis waaye yow tamit nag fexeel sa tiyaabu bu ko kenn yàq xamal ne dangaa nekk ci liggéey xamal ne dangaa nekk ci mission loolu bu la ko kenn kenn kenn yàq kon yooyu yu jar a bàyyi xel la ñu gën a góorlu bu baax a baax a baax a baax a baax ba kooru ren gi ñu woor ko woor goo xam ne danañ yëg ne bañ juddoo ba léegi mësuñoo wooree noonu Euh, beneen bi sama mbokk yi nga xam ne ñooy jàngale alquran ci koor yi ñooy firi alquranul karim euh, ñooñu am nañ liggéey bu rëy boo xam ne ñu ngi koy def waaye nañu gën a xool méthode bi bi ñu koy defee parce que weeru koor bi yëpp nga bëgg a firi alquranul karim dina doy waar li ëpp solo mooy ñi ngay ñiy toog di déglu firi mi niveau bi ñu toll nga jox leen lu tolloog ñoom euh, am na koo xam ne yeggul sax xul yaayol kaafiruun kooku boo ko bëggee firil baqara vraiment temps bi dina kii ci moom boo moytul day tëdd si jàkk ji di nelaw moo tax programme yi ñuy tëral pour pour firi nañ ko xoolaat prix mi nekk prix moo xam ne du nekk prime passe temps wala koor jot na rek damay firi loolu war nañ cee génn toog quatre heures de temps di ko firi loolu xel mënu ko nangu da ngay wut temps bu doy temps boo xam ne bu yem la nga mën see firi ñi ngay firi am message boo leen jox mais di firi baat baat baat baat baat baat baat la ngay ñu bëri sax li ngay wax duñu ko xam loolu dafay dafay doy waar kon primi nañu xoolaat programme yi ñu koy yi koy doxalee euh, su ko defee ki nga xam ne tamit moom euh, njàngum alxuraanam dafa des ci koor gi na am programme mu jàng alxuraanul karim dëgg yàlla senegal moom léegi ku def effort tuuti rek di nga jàng alxuraan macha allah ñi alxuraan ji mu ngi gën di tas njàng mi mu ngi gën di baax dégg nga mu ngi gën di yaat foo dem quartier boo dem di nga fa fekk léegi ku mën alxuraanul karim ñooñu nag yow yaay dem seeti leen dem ñu tëralal la programme boo xamante ne ni da ngay jàng ci ñoom alxuraanul karim weeru koor wi daal loo doon jàng ci alxuraan da nga koy yokk. même soow mënul dara sax mokkuloo lu dul fatiha bés boo xëyee jàng ko ubbil téere bi bismillahi rahmaani rahim même booy ijji sax na ci nekk na ci nekk loolu la ca nekk ci tiyaabo kenn xamul nu mu toll mooy parce que ci la yàlla wàcce alquran chahru ramadan alladi unzila fihi alquran unzila fihi alquran comme ci la ko yàlla wàccee nag mu nekk anniversaire u alquranul karim bu yegsee loo mën ci alquranul karim na nga ko jàng alhamdulillah fi ñu toll nii Sénégal réew mi yëpp ñu ngi préparer concours bi nga xamante ne nii sëriñi daara yi ci Sénégal yëpp dinañ ko def nga xam ne ci la ñuy tànnee xale bi daq jàng euh, alxuraan ci Sénégal wala boog ci concours bi loolu nekk événement national réew mi yëpp di ko waajal actuellement loolu ñu koy defee ci grand théâtre loolu yëpp day jëmmal alquranul karim ci koor gi waaw foofu loo mën nga def ko def dara pour alquranul karim weeru koor wi nga jàng alquran teral waa alquran yëkkati waa alquran bàkk leen kañ leen ba yàlla xam ne yow mi teral nga téeréem bi teral nga ñi nga xam ne ñoo mokkal alquranul karim alquran ku ko bëgg yàlla bëgg la ku ko yëkkati yàlla yëkkati la ku ko teral yàlla teral la kooku amul sax dem te ñëw histoire ba mu sosoo ba léegi ku mos a yëkkati alxuraan rek yàlla yëkkati na la ko mos a teral rek yàlla teral na waaye ku ko mos a xeet mbaa nga koy xeex mbaa ngay jéem a doyadal ñooñu alxuraan dundal rek ku gudd fan tuuti dina fekkee sa toroxtaande yal nañu si yàlla musal kon fi mu ne jànkatu alxuraan yi ci réew mi yëpp ñu ngi waajal jongante alxuraan yooyu nga xam ne dina am fii ci réew mi macha allah daaw gis ngeen yéen ñëpp eh, sunu doom doomi réew mi Cheikh Moujtaba ndam li mu am ba Sénégal fépp di ko tiitaroo même dañu gis sax plateau yi nga xam ne sax am po lañ leen siiwee sax woo nañ xale bi pour teral ko te ñoom kat. ci pol lañ leen siiwee fo tëgg ak fecc yu mel noonu ci lañ ci la ñuy yëngu waaye ndam li xale bi am tax nañ ñu jël xale bi sax di ko invité ci plateau yi di wane na ñoom bëgg nañu alquranul karim ren nag lay yokk ren moom ku wuutee bésu alxuraan boobu di nga wuutee lu rëy parce que njàng mii nga xam ne moom lañ jàng ren Euh, vraiment da ngay am fierte pour doon sénégalais da ngay xam ne yàlla may na leen waa réew mi dangay xam ne yàlla teral na leen ci alquranul karim lépp loo mën a def ci alquran def ko loo mën a def ci teraanga ci alquran def ko doo ko réccu incha allah barke bi di nga ko gis ci sa bopp waaye tamit di nga ko gis ci sa njaboot incha allah kon mbokki jullit yi euh, jàpp naa ne fii ñu toll nii. weeru koor wi liis des bareetul ñu ngi ñaan yàlla yal nañu si yàlla yegg ak jàmm te yàlla may ñu ñu woor ko ci jàmm yàlla nangul ñu ko euh, dama am nag samay xarit yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, euh, xëy na sax <laughs> ñoom ay kilifa diine lañ waaye léeg-léeg da ngay dem ba mu yàgg rek yàlla may la nga dajeek ñu baax ñoo xam ne doo doo doo leen doo naan ñii fan la ñu nekkoon ci àddina waaw wax dëgg yàlla fan yii dama daje kilifa diine goo xam ne mu jàngal ma njàng moo xam ne duma ko fàtte muy sëriñ Modou Mamoun Mbakke Balla Coor sëñ Mamoun Mbakke ak alaaji Fàllu Buso ñu teewal sëriñ Abdul Qadir sëñ Bas Abdul Qadir fële ci daje bi nga xam ne Chérif Baba amaloon na ko ca Caaroy kër alaaji Modou Thiam ñooñu vraiment Euh, joxe nañ fa bind yoo xam ne bu ko réew mi yëpp déggoon wax dëgg yàlla dinañ am jàmm damay wax ne kilifa yu mel nii fekk ñu ngi nekk ci réew mi rek réew mi ci naataange lay nekk te barke lay doon incha allah yàlla jox na leen xikma yàlla jox na leen yërmande yàlla jox na leen wàcce seen bopp te yàlla tax kon sëñ Maamun Mbàkke Balla Coor maa ngi lay nuyu ci émission bi di nuyu sëriñ Serigne Alaaji Fallou Bousso di ñaan ngeen jottali ñu suñu nuyoo ci suñu mbokk sunu xarit Cheikh Mouhamadul Bachir Abdoul kaadir mu jottali ñu ko xalifa bi wax dëgg yàlla seen teewaay foofu am na solo rafet na fa waaye di nuyu tamit waa sëbi xotaan sama xarit bu baax boobu suñu papa Pa Konte maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar léeg-léeg am na ñoo xam ne eh, daal da mënoo leen ñàkk tudd même bu ñu ko buggul sax waaye léeg-léeg dinañ la gàgganti walla ñu jubbanti la loo xam ne de fa muy yegg ci yow yow rekk ko xam moo tax faw nga tudd leen nit ñi xam ne émission bii di Al Amine diine ji ñëpp ko bokk parce que kilifa diine yi. koo ci taseeg rek bu la waxee dara rek da ngay waaru ci yàlla munoo woon sax xalaat ne yëf yi toll na leen foofu waaye lu ma leen wax rek seen ñaan rek moo ñuy dimbale jàppale ñu ñu ñaan yàlla mu nekk émission yi nga xam ne day dimbale diine ji di di di ci di ci baywaar waaye tamit di participer ci doxinu réew mi incha allah ñu fexe ba réew mi naat diine ji am am am am am bennoo am bennoo émission bi incha allah incha allah du mus a nekk béréb boo xamante ne ni day taqali julli mais day boole day boole rek nu waxit incha allah parce que al amin ñëpp ko bokk waaw ñëpp ko bokk mu yontu yàlla muhammad te moom yërmande la te moom barke la parce que moom bennoo rek la ñu woo moo tax incha allah ci loolu ci la ñu fas yéene di dox di xeeñtu tànk mag ñu baax ñi ñaan yàlla mu nangu ñu nangul bépp jullit kon mbokk yi euh, tey lii la ñu leen indiloon ci seen émission Al Amine euh, di waaj nag suñu bés bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko moom bésu réew mi la muy lu daarul mooti ñu ngi waaj pour jëm daaru incha allah euh, bésu maam Cerno Birahim boobu nga xam ne bu jotee événement yi ëpp doole ci réew mi ci la bokk waaye rawatina nag jotaay bi nga xam ne dina am fële ci kër Baye Seex Xadi rahimahullah ci ndigalu sëñ Abdou Mbàkke nga xam ne boroom xam-xami réew mi yëpp fay daje incha allah nañu ko daan defee rek noonu lañ koy defee ñu ngi waaj imaam yaa ngi waaj boroom xam-xam yaa ngi waaj ñëpp ñu jox leen rendez-vous ci màggal gi ci ba kër Baye Seex Xadi incha allah waxtaanee thème yoo xam ne dina jëriñ réew mi waaye dina benn la jullit ñi waaye dina amal njëriñ diine ci incha allah kon ñëw ñu ngi jox euh, xarit yi ak sopp yi yëpp rendez-vous Daarul te incha allah gannaaw suba ñaan yàlla mu yóbbu ñu si jàmm euh, delloo si ñu ci jàmm te lépp lu ñu fa def rek ci lu baax yàlla nangul ñu ko euh, bu dee barke xéewal yàlla sotti ko ci réew mi incha allah mbokk yi tey lii moo nekkoon seen émission Al Amine mu doon ay xalaat yi ak i ay laay biir yoo xam ne dañu ko jëmale ci wàccaayu koor gi incha allah ñaan yàlla mu nangool ñu nangu nangul bépp jullit maa ngi nuyu tamit alaaji Paate Jaxate dégg nga Paate Jaxate moom macha allah xam naa ne koor gi moom dina doy waar eh, yal nañu yàlla may ñu woor ko ak jàmm siise siise yi dégg naa dañuy wax naan baraxlu moom weer wu gaaw la waaye nag gaawul de moog weer yëpp a yem li fi nekk kañ mooy da ngeen ragal xiif rek yal nañu yàlla may ñu yeggali ko siise siise yi saaxo saaxo yi ture ture yi jaxate jaxate yi looloo borom sant yooyu yooyu noonu ñu góorgóorlu ñaan yàlla mu may ñu fekke ko ak jàmm lakum minni alxubbu wa duaa dawman wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu 分。